waaw waaw waaw huitième combat huitième combat de la soirée Boy Faye Fassane Njaxas gi Boy Faye jógee école de Bosco Sow Njaxas gi jógee école de Grand Dakar école de Boy Bambara boobu mooy huitième combat de la gi Boy noonu Njaxas gi moo jàkkaarloo ñun. moo ñu woon ginnaaw Niakhas gi moo jàkkaarloo ñun way fay fa à Niakhas gi Boy Faye Niakhas gi Boy Faye face à Niakhas gi huitième combat de la soirée aujourd'hui samedi 31 décembre 2022 sama gars ñëgal ñu nationale le promoteur Lamine Ndoy à la tête de la structure LP 20 moo organisé numéro 2 Falka Njaxas gi waaw waaw combat bi dem na combat bi dem na Boy Faye Njaxas gi Boy Faye Njaxas gi Boy Faye Njaxas gi attention Njaxas gi dugal na ko Boy Faye fayu na Boy Faye Njaxas gi waaw waaw waaw waaw rofoon nañu jàppante nañu waaw waaw Boy Faye Njaxas gi Boy Faye paase waaw waaw waaw waaw attention ñu ngi bëre ko ci suuf Njaxas gi ci suuf ñu ko bloqué da ko bëgg a bloqué ci suuf Boy Faye waaw waaw na Boy Faye jóg na waaw waaw Boy Faye ba sa jaxas na ko rëpp na jógaat na jaxas gi na ko léegi mu rëpp waaye jógaat na Boy Faye Fassane Ndiakhate gi Boy Faye jógee école dañ pos ko sow jàmm gën Ndiakhate gi jógee écurie Grand Dakar kon day Boy Bambara Seydou moo ko moo toogal seen kii di Ndiakhate gi waaye Boy Faye ko si Sadio moo ko toogal see waaw waaw attention ñu ngi bëre dem nañ ci suuf Boy Faye Boy Faye na fa attention bi am na waaw waaw kala yi ndeysaan waaw waaw mi ngi noonu Assane Tall daan na ko Assane Tall Ndiakhate Gui daan na ko Ndiakhate Gui daan na Boy Faye ndeysaan jëli bi rey na Boy Faye ñàkk na combat bi ndeysaan am na lu ko bett am na lu ko metti ndeysaan mi ngi noonu jël ko kon Sadio mi ngi wax ak moom Sadio mi ngi wax ak moom Boy Faye ndeysaan ñàkk na combat bi daan na ko moom lañ daan woowee xale capable dafa capable coupable criminel mi ngi noonu kookooy njaxas gi kon su Seydou dem na jëli ko Seydou dem na jëli ko bëri na bëri bi daan na jëli bu rëy njaxas gi daan na jëli bu rëy jëli bu leer jëli bu amul benn wérante ndeysaan boobu nekkoon huitième combat de la soirée huitième vainqueur de la soirée njaxas gi école Boy Bambara daan na Boy Faye bu écurie école Boy Sow Sow jël ko mi ngi noonu njaxas gi mi ngi noonu moom ngay am noonu ndeysaan bëri na bëri bi daan na jëli bu rëy géew bi mi ngi wër géew bi moom Njaxas gi ndeysaan